asalaamaaleykum jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñuy suivre di ñu bàyyi xel saa su nekk ci wasaare làmb euh, cant ngërëm ñel na leen tey nag mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci benn xibaar boo xam ne dana neex ak làmb yépp muy euh, libération Luc Nicolaï mu nekk nag mbokk yi xibaar boo xam ne képp ku fare ci làmb sa xol dana ci sedd ndax demande social la woon ak làmb yépp ñoo ko soxla woon ñoo ko doon laaj ñoo bëggoon ñu libérer Luc Nicolaï ndax liggéeyam bu mucc ayib liggéeyam bu am solo parce que rek bu ñu sukkandikoo ci lu mujj rek euh, bañ a répété ndax depuis mu dugg ci làmb ba léegi lim fi def bari na lim fi liggéey bari na ndaanaan yim fi génne bari nañ journée yim fi tëgg bari nañ euh, bu ñu si dellu siwaat fii la fanaan mais juste rek ci li gën a récent muy diggante Ama Baldé ak Modou di combat royal combat boo xam ne Sénégal yépp ñu ngi doonoon xaar ñu finaliser ko yàlla jaarale ko ci ay loxoom mu finaliser bile combat mais ci biir loolu combat bi dañ ko finaliser takk problème yi gàllankoor yi daal di ñëw ñu arrêté ko ci mbir moo xam ne nii xawoon na yàgg euh, parce que mbiru drogue la woon ci benn euh, hôtel bu ñuy wax Lamante bit euh, loolu la woon mu nekk mbir moo xam ne nii. jaaroon na fi bi combat bi taxawee mbir mi suleekuwaat ñu téye ko teg ko loxo ax lu làmb yépp nag di ci ñaan képp ku am baat ci làmb muy interview wala muy émission wala leneen saa yow génnee jàpp ne boo waxee nit ñi danañ la dégg say kàddu boo ko ubbeewut libération Luc Nicolaï booy tëj da ko tëjee muy ñëpp nag ñëpp maase def ko benn demande sociale di ñaan ngir le président de la république monsieur Macky Sall libéré promoteur bii nga xam ne mooy Luc Nicolaï loolee nag démb la ko sunu borom di doog a sottil jaarale ko ci loxo yi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ci gracier gi mu doon gracier 674 détenus yi nga xam ne da leen di gracier ci feetu tabaski bi comme ni nu ko baaxee baaxoo di defee ci 674 yooyu nag yàlla dogal sunu promoteur. ki nga xam ne nii lu ne def na ko ci làmb bokk ci lim boobee ñu ciy sant yàlla nag di ci ndokkel ñi nga xam ne nii jàpp nañu si wax nañu ci sonn nañu ci ñëpp ndax bi ñu déggee rek ne Luc Nicolaï entamé na benn grève euh, grève de la fin ñu ci bari xawoon nañu jaaxle te grève de la fin boobu nekkutoon ngir ñu libérer ko mais c'était pour ñu transféré ko yóbbu ko mbuur ngir mu jege ay famille loolu moo waraloon moo sababoon grève de la fin bi nga xam ne mu ngi ko doon def ndax bu ñu fàtte ne dañu ko condamné woon à cinq ans de prison un an avec sursis donc un an la waroon a tëdd li des sursis la mais ci biir loolu sunu borom mi dara tawut dogal le président de la république di gracier ay nit ni ki démb boole ko ci ñu ciy sant yàlla bu baax nag ndax ku doon. ñaan tey ñu yóbbu la mbuur nga jege sa famille ñu mën di la seet si yàlla dogal nga delluwaat ci sa biiri famille loolu dañu naan alhamdulilah mu nekkoon combat boo xam ne ñépp ñu ngi ci woon site internet yaa ngi si woon télévision yaa ngi ci woon amateuru làmb yaa ngi si woon mbër yaa ngi si woon communicateur traditionnel yaa ngi ci woon reporter yi animateur émission yi ñépp ñu ngi ci woon parce que demande sociale la comme ni ma ko waxee ndax Luc Nicolaï mooy làmb Luc Nicolaï tey bu ñu ko jàppee dañuy gàllankoor lu baree baree baree bari ci wàllu làmb bokk na ci li retardé sax combat Ama Baldé Modou Lo donte mbas mi liggéey euh, def na ci lu lu lu lu yéeme mais arrestation aussi def na ci affaire bu yéeme mais tey bu ñu fekkoon ne tey arrêté wuñu woon Luc Nicolaï combat boobu peut-être mënoon nañoo wax leneen mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam gannaaw dellu siwaat na ci ñun ñu ci sant yàlla bu baax di ko ñaanal wër di ko ñaanal jàmm ak salaam mu dellu siwaat continuer waat liggéeyam ndax am na ci njariñ am na ci solo parce que dafa am ñoo xam ne dama koy faral di wax souvent ñoom yàlla dafa dogal làmb nekk seeni mbir ñu téye ko di ci liggéey liggéey bu mucc ayib ba fépp fu làmb toll bu ñu gestoo gis leen ci kanam wala ci ginnaaw xel yi day dal ku ci mel ni sunu papa Gaston ku ci mel ni Luc Nicolaï ak yeneen promoteurs yi fi nekk mais ñii dañoo bokk ci ñi nga xam ne lu làmb nekk nekk nekk ci situation danañ def seen kéemtalaay kàttan ba génne ko ci kon nag dañuy sant rek ci libéré bi nga xam ne ni libéré nañ ko di yëgal mbokki amateur yeeg mbokki internet yépp ne sunu papa Luc Nicolas jiital Luc Nicolas Enco président de la république monsieur Macky Sall gracier na ko niki démb ci 674 détenus yi nga xam ne mu ngi leen doon gracier ngir ñu feete ji feet bii di tabaski seen kër ñuy sant yàlla di leen jaajëfal bu baax di jox ñépp dig daje ba ëllëg incha allah ci yeneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf